et et et, et l'étranger tey ñu gis phénomène bi nga xam ne moom mooy immigration clandestine bi euh, dama bëggoon xam yow sa par rapport ak euh, phénomène boobu nga xam ne ba léegi mu ngi continuer lan moo ko gën a euh, accentuer fu mu toll nii et puis c'est quoi en mmh. résumé c'est quoi qu'est-ce qui peut être la solution en tout cas à, à court terme ne serait-ce que mm-hmm. pour euh, arrêter bi voilà ci njëkk ci côté comportement bi moom li ñuy olof Njaay di wax ni saabu du fóot boppam mais je tiens à vous dire que je suis correct très correct même beneen bi stop mooy immigration bi ngay wax moom man du nekk lu may accepter du nekk lu may rafetlu mais aussi y jamais di fumier sans feu dara su amee rek da ngay xool cause bi il faut retourner à la source pour comprendre lan moo waral phénomène bi am bu ñi di jël gaal bi di dem di si dee surtout jeunes yi loolu c'est très remarque bu am importance la bu ñu war a def fan la jóge lan moo ko waral soo xoolee bi si njëkk lan mooy base nit mooy éducation soo amee éducation ba pare dañ la war a former parce que soo xoolee ñun suñu système bi ñuy jàngee ñun boo xoolee baaxul des je m'explique sur le terme déet waaye neen nañ ko améliorer rek. non hmm? il ndax ndax kilifa yu mag yi fi jóge ci système bi lañ jóge de. yi fi tekki tey nekk fi ay nit yu mag ci système bi lañ jóge neel nañ ko améliorer rek mais bu ne baaxul. mais su ma nee baaxul cest à daa am lu ko gën a efficace parce que tey jii soo xoolee suñu basé woon ci formation professionnelle tey jii ñii di jël gaal di dem nii loolu du ma du am sax mais dina wàññi mais formation professionnelle am na. mais demewul comme defuñu ko comme ñëpp bénéficié wuñu ko quoi peut-être que président Déthié Fall su ñëwee ba jël réew mi incha allah même sénégalais bi gën a arrière bi nekk kii ko dina bénéficier bourse gratuite pour mën a def formation ba du mën a jël ay gaal di dem toog ci biir dëkk bi liggéey ci biir dëkk bi bon en même temps soo xoolee ci programme am sur l'industrialisation bi mu ñëwee Maroc soo xoolee dugg na ci biir industrie partout gis nañ ay sénégalais yoo xamante ni seen jàng soriwul sans diplôme dañuy piloté foofu di diriger ci biir usine yi. pourquoi pas ñu former suñu jeune. alors seen responsabilité yan lan la yéen mi nga xam ne yéen nekk parce que boo xoolee bëri na ci ñoo xam ne ñoom ñooy gën a pousser sax jeunes yi di dem si ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk da nga leen di fekk bitim réew ñu torox tot bu ñëwee Sénégal ñu ñuy ngand du takk ay verre nii ak ay ay ay ay ay xam nga ba mu kii alors que lekkuñu fa naanuñu fa. donc bu ñëwee fii newuñu ci jàmm gëmloo loo jeunes yi loo xam ne amul foofu noonu. waay c'est c'est quoi votre responsabilité dans ça. non loolu moom comportement personnel la rek peut-être que yaa ngi jël ci man exemple. yow de la mais sant yàlla. <laughs> yow la ñu ngi parce que nit moom surtout jeune nga nekk ci benn affaire ren ba déwén mu lay dundal di la teral te ñaanoo kenn dalaloo kenn loxo te tey jii place boobu état moo fa war na toog. jàngal la ba nga pare formé la jox la nga liggéey yow loolu lépp nag jeunes yi nekk di def ay GP ak jeunes yi nekk biir Maroc loolu lépp xaaruñu ko ci état dañoo jóg di ko defal seen bopp. d'accord kon j'espère que ñooñu ku leen encouragé wul. Mm. waroon leen a jeter un coup d'œil.